<laughs> gars yaakaar naa wax ji leer na de entre Iliman Ndiaye ak Ismaïla Sarr léegi moom Iliman Ndiaye kart gi leer na nañ que ni Iliman Ndiaye moo war di départ Ismaïla Sarr moo war di xaar loolu moom yaakaar naa on n'en disconvient même plus voilà Ismaïla Sarr mii dafa war a xaar que nag dafa daan nekk ci équipe nationale sa ñu koy titulariser puusul paasul apporter lu dara équipe nationale Iliman Ndiaye tey dugg na wane na ni sa waay xoolal <laughs> voilà moi mon place bi il a fait un match correct même bu fekkee teel naa génn il a apporté plus que Ismaïla Sarr en 1000 matchs vraiment chapeau bas le may wax rek xam-xam du pexe wala gisee ñuy casse en équipe nationale c'est parce que nous bëgg maanaam équipe nationale niveau de dafa war équipe nationale ça doit être le très haut niveau warul am ay joueurs yo xam ne dañ leen di jàppal tànk tey Ndiaye ku ko sétane xamni ki ni nii sa waay nan la a ba Ismaïla Sarr ne ci terrain bi def lu ko saf c'est du n'importe quoi en équipe nationale ñi mérite place ni ñuy football. te xool leen suñ côté droit bi ni inexistant yi woon Sénégal bo xolé côté gauche bi ismaïl Sadio Mané rek mo daan apporter bu Sadio Mané deful dara bu am dara mais tay xolé bo xolé côté droit bi mo gëna sax apporter ko côté gauche bi te ni la war di démé équipe nationale côté yëpp wara baax ñu jël jour yi di leen tek à leur place mais pas di bir ko Sénégal tollul fofu fu ay Habib jara di ñëw di football ay piston wala ñu jël ay axe central di football ay latéral Sénégal am nañ des joueurs qu'il faut dañu andi boy yi wara football di leen tek seen poste yi ñuy fubal niveau bi day yéeg ay le mossa a été correct le mossa a été phénoménal mais nak Ismaïla sar <laughs> li la la gars doon bañal de instant yi ni même boy Cheikh Cheikh Tidiane Sabali bobu non tay jii wone na boppam de sar <laughs> ya ngi nelaw de bu doon maa nga dem caravasé de liggéeyaat bo bëggee place équipe nationale sa place bi ni ni ni 11 de départ bi <tsk> bala nga ko récupérer waat ci Iliman Ndiaye mi di nga wax lu xat waaw di nga wax lu wex xat xat xat c'est le haut niveau amul temps équipe nationale ni la ku gën a mérité ku gën a performant rek sa waay na ci nekk keneen ku nekk fii di nelaw dem xaar nga dem wuti temps de jeu wala nga dem rayante ji boo mérité sa place ñëw c'est aussi simple que ça. Idrissa Gana Gueye Idrissa Phénomène Gueye hop hop hop gars yi respect respect à Idrissa Gana Gueye tey moom gars yi son match deux heures di moom hop hop hop c'est le haut niveau Idrissa Gana Gueye tey il a fait un match de fou gars ñu ngi naan jeexal na ñu ngi naan jeexalul mais gars yi nga li wax ci équipe nationale. li nga place yi bu seeree rek kenn amatul place bu garanti am en équipe nationale kuñ dugal di rey sa bopp li nga Gana bi ñoom Lamine Camara ñoom Pape Matar Sarr Pape Gueye Habib Diarra commencé ko Gana tey dafa nekk di wane boppam pour kartaat place am wane ni jeexaluguma ba léegi am naa sama place ci biir équipe nationale bi te nii la war di demee ci équipe nationale les en équipe nationale les places doivent être chères benn tey gis ngeen Idrissa Gana Gueye tey lu ko waaye mënti critiquer malgré son âge et tout tey vraiment il a été génial il a été généreux dans l'entrejeu Idrissa Gana Gueye a été partout pour man Habib Diarra a planté un double mais l'homme du match c'est Idrissa Gueye il a été partout côté défense offensivement partout. Il a récupéré beaucoup de ballons. Vraiment, chapeau bas à Idrissa Ganagé. Idrissa Ganagé, niveau bi lañ bëgg di ko gis en équipe nationale. bu la déglee équipe nationale nga wane li nga xam ne moom mooy sa bopp. Man lii laay xaar jour bu ñu dugal équipe nationale nga muyal a mayo def le maximum joxe ba jeex boo sonnee nga génn sa morom dugg. gars yi respect à sa Gueye. gars yi Pape Thiaw c'est fini gars yi Pape Thiaw bi match bi jeexee toog na conférence de presse nee na rôle intérim bi instant bi jeex na instant bi coach intérim bi jeex na instant bi nag lenn moo des fédération dañ jox contrat mu nekk coach officiel wala dañuy xooli beneen coach ou mais en tout cas le bilan de Pape Thiaw c'est 4 matchs 4 victoires 8 buts marqués 0 but encaissé en tout cas Pape Thiaw gis nañ ne équipe bi dundaat na gis nañ ne indi na système bu baax na 4 2 3 1 système bu baax day def ay baax gis nañ ne match contre Burkina Faso mu Malick Diarra gagné match bi tey aussi gis nañ pare mu tourné équipe bi deuxième mi-temps mu indi benn jour mu ni Cheikh Tidiane Sabaly mu ñëw def passe décisive Pape Thiaw daal 4 matchs yi mu def 4 matchs yoo xam ne dal na xel 4 matchs yoo xam ne vraiment il mérite na ko mérité na comme may ko fi mu doxal vraiment man moom bokk naa si ñu ko samp quoi en tout cas instant nii samp naa Pape Thiaw ku nekk nag am na droit far fu la neex mais gis naa ne Pape Thiaw li mu jotagul woon si na waa Reus Reus laa nekkal nii xam la grand tiktoker noo gisee le match de Habib Diarra le match de Iliman Ndiaye. waaw match correct ah match correct Iliman Ndiaye comme d'habitude Iliman Ndiaye moom bettuñ xam na li mu mën mais Habib Diarra Habib Diarra lañ gën gën gën a découvrir quoi Pape Thiaw boo xoolee bi mu ñëwee ba léegi. Mhm. joueur bi ñu gën a gis mooy Habib Diarra parce que dafa fekk Habib Diarra. Mhm. latéral la loolu joué wala daawul football. Mhm. mu jël ko tekk à son vrai poste dugal ko si milieu terrain bi deux matchs trois bi premier échange Sénégal deux matchs yu ñu yëpp trois bi Habib Diarra moo ko dugal voilà donc Pape Thiaw la touche de Pape Thiaw c'est Habib Diarra échange très bien. donc gars yi boo am analyse yu rës demee incha allah c'est sur M4 TV. waaw gars yi MK TV sur YouTube avec Resmi mu Len Birmi. mbir mi lépp dina ko leeral dinañ wax Pape on dafa a continuer mais déjà rek ci commentaire wax leen ma noonu leen gisee avec Habib Diarra bi nga xamante ne c'est fantastique. première place on l'a et franchement les liens se sont battus on a gagné on a gagné avec la manière aujourd'hui au stade Abdoulaye Wade te gis ngeen jeu comment ça a été mais Eliman Ndiaye quel pépite mais Eliman, tu nous fais quoi. Qu'est-ce que tu nous proposes là Mais il mentait trop fort. Mais incroyable, Sirif Ndiaye aussi, il a fait un très bon match dans l'ensemble. Le Sénégal, il s'est imposé 2-0 avec un doublé de Habib Mais Habib Diarra, toi aussi. Habib Diarra, qu'est-ce que tu prends Mais t'es trop fort, frère. T'es trop fort. Depuis, on a, en tout cas, man, si on fait des qualité joueur, mais en tout cas, on a vu un très bon Sirif Ndiaye. Sirif Ndiaye, il a été très bon. C'est un vrai attaquant. Un vrai attaquant de pointe, moi, Sirif Ndiaye. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Dans l'ensemble, c'était parfait. Demain, a fait des match Gana Gueye tamit bàyyi ko ak xale ah bàyyi ko ak xale aussi mais voilà je suis un peu je suis contente mais triste tamit bi ma apprendre une nouvelle c'est ce que t'attends de moi demande-moi. Mauritanie a été éliminée Ghana CAN suñu voisins yi mm, Guinée Gambie Cap-Vert franchement c'est c'est triste quoi parce que ñun ñoo ngi doon xaar. gis gis euh, joueur yoy gis euh, équipe yoy non yep ñu dajé fële ci Maroc ñu football vu que CAN Côte d'Ivoire bi ça a été vraiment néxon na on attendait à ce que ñu gis équipe yoy avons fait les Tchèques au Maroc mais malheureusement ils ne sont pas qualifiés c'est vraiment dommage c'est vraiment triste Girassi les gars Mauritanie oh là là là là franchement c'est triste quand j'ai vu les matchs j'étais choquée wallahi 2025 je me mais bon voilà on va faire avec c'est le football. gars comme débrief adresse 30 une minute pour mu neex nag c'est à 19h incha allah donc sur m TV YouTube dinañ gën a andi ay leeral muy ak sama chroniqueur donc léegi-léegi xaar lañu foofu donc man sama xalaat bon c'est pas important même si dinaa ko joxe après sur YouTube xam comme ni ngeen ko gisee entre Ilimane et Ismaël Sa gis ngeen li ma ci wax je suis d'accord que Ilimane franchement def na ay prestations yu xamante ne mérite na titulaire au poste d'ailier droite loolu moom c'est c'est clair dans ma tête et aussi Habib Diarra bi def doublé 3 bi yu ñu dugal si deux matchs yi si Habib Diarra moom gagné na ay points si donc le Sénégalais déjà mais même entraîneur le euh, futur on sait pas nécessairement parce que débat est nous avons am donc yi El a donc attaque ce sera sur MK TV sur YouTube les gars sur à partir de 19h vous serez ba 19h30 Inch'Allah, commencer sur MK TV donc ci commentaire wax leen ma seen xalaat